نفس خيري يجود لي جواب من جيابي وصل لي Alin. Alin. Alin. Alin. 예. 수나 와. bisimilah bisimilah bisimilah jërëjëf. bisimilah. li ñu nekk maanaam lu wàllu ci wàllu setal. waaw maanaam loolu sowel la. ak mara. xam nga jëm ci wàllu sowel. Mmh. lii nekk tàndarma. ginnaaw koor koor li ñu jëm. maanaam tàndarma ji dana ci am solo lool moo waral ñu fàgg gën yi gën yoo xam ne ci ñu bëgg wala ñu ko seet lii xeet bopp yi la kon ñuy séddale maanaam dana dana kenn ku nekk dana mën a am sa bopp bopp lii rek pare xam alumule yoo xamante ni njàng lii kecax waaw kecax bu dul bokk ci li daara yi ci lool te te fàtte ko parce que moo nekk maanaam bagage bi nga nga amagum ci ak ak xool te mu nekk xoolu nit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 ala nabi mulaqam salli salla wa sallama alayhi llahu fi laali wa sahbi wa man wala mbokki jullit yi mbokki taalibe yi murid yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen jaar di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mourtada ibnu Cheikh Saleh di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba lépp lu nit ku ba ku baax mos a sumb ci àddina di ko liggéeyal boromam kenn bañ ko cee ëppale ci barke Serigne Touba barke Cheikh Saliou way juróom di sàkku itam nag ñu koy ñaanal bu baax a baax ndax li tax ma wax dama cee am benn seere bis xel kom Serigne Saliou ñëwoon xusul maar dajale ci ma di waxtaan ba mu yàgg ñu ñëpp dong yëpp commencé naan ko Mbakke yàlla nga fi yàgg ci yàlla nga fi yàgg ci wér mu ni amiin comme yàgg mu ni nii ñu not dafa jëkk wax sax ni màggal gi day woote naa ko ba pare ndax dégg ngeen woote bi ñu ni ko déedéet dégg buñ ko de mu ni ah xam naa dinañ ko teg de ndax wax naa ko ci rajo ba noppi bi mu waxee loolu ci lañ ko wax Mbakke yàlla nañ fi yàgg tëwér yàgg yàlla nañ fi yàgg tëwér mu ni nii loxo yi ñu noppi mu ni dañoo wax ak ñaan gi jóge ci taalibe bi jëm ci sëriñ loolu sëriñ Saliou mosul ma am la doon wax kon nañ koy nañ koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax a baax ginnaaw loolu ku nekk xam na tey li nu fi dajale muy ziar kaddu yi nag du gudd ndax micro central bi rek lañ yor waaye dañuy ubbi rek jox jëwriñ yi ndax Sëriñ Tuubaa ba muy sant ci ñeenti baytam yu sell yooyu ca gànnaar ca Sarsara yoo xam xamdi wa shukri liman kulli bihi saara jooju lahu ridam du ma soxti na inda Sarsara booba jafe woon na lool te magi taalibe yi jóge woon nañ fii Sénégal ba fekk ko foofu te booba jamono bu metti la woon duñ ci xuus nag kon ñu ngi ñaan suñu borom yéegal ñu te siyaaru sarsara boobee yàlla mën na ko sëriñ bi mën na ko yàlla na ko def ginnaaw loolu dañuy jox euh, jëwriñ sëñ Manel ndax kàddu yi dañ koo bëgg a tënk rek jox jëwriñ sëñ Manel moom mi nga xam ne moo yoroon ak yi bi mu mu yëkkati ci ay kàddu su ko defee su noppee ñu jox sëñ Abou Sarr mu leeral liggéey bi sëriñ bi su noppee ñu jox sëriñ jëwriñ sëñ Moustapha Boy su ko defee sëriñ bi door jox ay kàddoom sëriñ Modou bu ko defee doom ñoo ñaanal noonu lañ ko tënke woon kon na ci ñaanal la nga yàgg fi dëgër ñoo ngi nuyu suñu jëwriñ bii ñu jàkkaar lool di sëñ Mor Jaxate bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di ko ñaanal moom it mu yàgg la seedeel taxawaayam ci mbooloo mi bëgg bu baax a baax a baax a baax a baax bala ñoo jéggi nag sunu mbokki taalibe te mat ñu sëriñ lool dañu nekk ci jot ay bi te nekkoon sa wéy juru teggu koy ñaar rek yóbbaat di sëñ Foye bu Ndooy ak sëñ Moustapha Gueye ñoo ngi leen di bu baax di rafetlu seen teewaay fii tey naam yàgg nañ koo jëfe waaye santaat nañ leen bu baax gërëmaat nañ leen bu baax mbàkke liggéey bi day mi ngi nii olof Njaay day wax ne nag bu jëf teewee wax day randu kon wax ju du mën a sori lii day di bisub ziar bii dañ ko war seen képp ndax nii ñu teewee sa kanam day noonu nga àndoon ak ñun teew sa kanam wajur bu tedd ba sëriñ Saliou ci këram gii ci jumaa ji bis boobu day wàcce bis bii dañ ko dugal ci bis boobee képp ndax moom nga ñu yoon damaa toog fee sànq dégg ko ni dar bi bi ngay xoolee liggéey bi ma waaw sama xel ay kon day woykat la te bu génnee dañ koy dar kon ñun bu ñu la daree juumuñu ndax dar doomi sëñ Saal doomi sëñ Saal bi sëtu sëñ Tuubaa Mbàkke day réew na ci ñun torop mbokki taalibe yi may sañu sa bopp bi leen soññ ci liggéey bii ndax sëriñ Tuubaa day moom lañ liggéey liggéey bii te fa mu jëm nott nañ ko bi xej ku baax ka am na lu ci bu yàlla dogalee mu jot ci barab boobee day neewoon na ñett ko tax a jóg tarbiya tarfiya tasfiya am na lu mu ca it nag ndax daa mel ne dafa ne woon jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom li Sëñ Tuubaa doon def ci mag ñi dañ koy yow ma xam a barke loolu foofee ñu nekk di jarbaat te it ñun ñii de kenn ku nekk ci ñun boo jàppoon sa ndey jaay jàpp sa baay jaay dawee japon sol ay daaru weñ di daw japon ba Sénégal ngir jëppal Serigne Touba loolu yi fayoo Serigne bi. nag gënu góorgóorlu ci liggéey bii ñun day am ku dul kii nekk ci suñu wet di Serigne Mourtada mu Serigne te mooy sunum Serigne Touba mooy sunum Serigne Saliou mooy sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam kon nañ ko jàppee noonu yi te lépp lu ñu mën ak lu ñu mënul bis bii bu dellusee ñu des ci lu nu ndax moom képp lan am beneen bi ci topp mooy am na lu ñu waxoon ci xel koom daaru tanzil ndax bañ fa demee newoon nañu man ngay sosuma dara suñ saalu daa teggi tànkam rek ma teg sama tànk alhamdulilahi rabbil alamin ba ñu àndee koo xamante ni suñ saalu daa teggi tànkam mu teg tànkam mbàkke day sant nan la bu baax gërëm nan la bu baax ñoo ngi nii bëgguñu xamuñu mënuñu yaa mën yaa xam yaay bëgg bëggal rek mu dugg suñu nopp loo ñu wax bu soobee yàlla danañ te nekk ba faatu dinañ jéem lu nu mën ak lu nu mënul ngir ànd ak yow ci liggéey bii nga bëgg a liggéey Serigne Salim Serigne Touba da nga wax ñu ca daaru tan ca daaru mi ñu ñu ñaanal la ngir nga am ndam ci liggéey yàlla nañ ci am ndam ci dara ja Serigne mbokki taalibe maa ngi jégalu waaye Mbàkke ñoo ngi dellu si waat de la seedeel ni mbokki taalibe yi ñu jàkkaarloo sant nañ leen bu baax ci turu sëñ Modou Diakhaté sëñ Modou jëwri ñi nga xamante ni ñoo ànd ak mbooloo mi ñëw ci ziar bii te liggéey bu jot ñu tàbbi ca def mi ngi leen di sant di ko béral sëñ Mourtala mu sëñ ko liggéey bu rafet ànd nañ ko ànd sant nañ leen bu baax ci tur sëñ Modou Diakhaté di ñaan lu waay mën ren yàlla nga mën dundeen kenn bañ a màggee màggee wax ji xam naa ni euh, li ma waxoon rek dana ma dana ma dana ma të waaye sant nañ bu baax gërëm nañ bu baax jërë ngeen di saar mbooloo mi fi teew ak jigéen ñi. nuyoo bi nag bi moom la ko ñëpp teewee ak ñi nga xamante ni Mbacke liggéey bii nga xam liggéey bii nga xamante ni dañ koo ànd ak daayira yëpp daayira yëpp bu daayira bu nekk am jëriñ bu nekk ca boppa mu ànd ak ñoom liggéey liggéey bi ba dajale ko tey jii ba teewal ko Mbacke ñu ngi sant mboolem jëwriñ yëpp yi nga xamante ni ànd nañoo ñoom ci liggéey bi ay ci liggéey boobu it du ñu mën a ñàkk a lim ñu si àndal ñëpp muy daayira yi nga xamante ni mooy daayira Touba ak daayira Mbour ak daayira Thiès ak daayira Kaolack ak daayira Louga ak daayira Béer ak daayira Lagamar ak daayira Saint-Louis ak daayira Kër Massar ak ak daayira Golf ak daayira ndongo sopp ndongo yi Sëriñ Saliou ak daayira ak daayira kii béy Touba béy waaw ak soxna soxna Mbacke Ka Daaru Tanzil soxna Mbacke Ka Daaru Tanzil ak mbooloo moom àndal kon daayira yooyu noonu ak daayira Gede ak soppay Serigne Saliou yëpp ak Moustapha Diop daayira ak daayira Parcelles ak daayira Golf ñoo ñëpp ñu ngi di nuyu te saarewaat bu baax baax. ak bu Tiwaawan Tiwaawan. ak daayira Tiwaawan ak daayira waa njiite Tiwaawan ak daayira njiite yëpp ñu ngi di saarewaat ak daayira Géejawaay ñu leen di saare bu baax ak laas ak mboolem taalibe yëpp rek dañuy dañuy présenter dañuy daal di liggéey bi ci ni ko daare yëpp tàkkee ci ko ko fii ba mu teew nga xam ni sëriñ bi liggéey bii rek sa bi nga xamante nii sa way tedd la moom nga ñu xamaloon nii moom day sosoo si dara da jóg rek ngir sof te sa foogu nga koy soppi ñun ñu sàkk woon bés mel nii mooy dajale ay xéewal yoo xam ne jëm sa daara ja te bi ñu ko sàkkulee nga nangul ko ñu fas ko ànd ak yow loolu noonu ñu teel a teewaloon ci liggéey bi maanaam benn kaamil alxuraan ak juróom-ñaar ak juróom ci téere yaasin ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci téere xam-xam ak juróom benn fukk àlluwa ak benn tonu ceeb ak fukk ak juróom benn ci saaku suukar ak fukk ak benn ci bidon mu diwlin ak ak téeméer ak juróom-ñaar ak juróom-ñeent ci café ak ñaar fukk saaku soble ak juróom-ñeent fukk ak juróom benn ci saaku miskin ak juróom-ñett tàndarma kees ak juróom-benn gorosu aliment ak juróomi carton ak juróomi carton mu eau de javel ak fukk ak juróom ci ak fukk ak ñaar ci bale sëñ ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci bari taxaw ak téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci kaasu kafe ak juróom-ñaar ci masi tablette ak ñeent ci keesu damba yi xam ñoo def kecax ak ñeent ñeent ci saaku xorom ak fukk ñaar fukk ak ñett ci seetukaayu kafe ak benn bagatu àll almet ak ñett gën ak benn saaku pompiteer ak téeméeri potu ak ñetti carton mburu suukar Mbàkke loolu yi nekkoon liggéey bi nga xam ni daayru daayra Nahdu national ak daayra yi nga xam ni ñoo nekk extérieur ñoom ñëpp ñoo teewal liggéey boobu yi Mbàkke bi ñu boole ko xeet ko lool ndax ku nekk ci ñun liggéey bii ni ma xamee yéene yi nga xamee nii moom la ñu di taw yëpp yéene ci yow liggéey bi yow kenn mënul bëggoon bëggoon mën a def waaye nag yéene yi moom leer na li mu yi nag moo toll góob nii rek Mbàkke comme dañ lay ñaan te di sàkku suñu yi tey nañ ko gën a mën suñu yi. na na ëpp na suñu jëf yi na ëpp suñu yéene ndax ndax ñun ñëpp dañoo am yéene ci yow mooy ci góor ñi ak ci jigéen kon Mbàkke ñu lay def lay sant bu baax a baax di la ñaanal nga yàgg fi te liggéey bii ñu ñu teew fii bokk ci liggéey yi nga xamee ci nii moom la sëñ Tuubaa nam sa wajur te doog sëñ Saliou Mbàkke namul ñu ko ñu ngi koy sàpp te di ko jaaree ci yow ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla suñu borom ñëpp yi teewaat fii si jàmm ak salaam te at yu baree bari te ñu ànd koog ñun ñëpp comme ni ko sëriñ bi bëgg ñu xam ni sëriñ bi liggéey bii ñu àndandoo lu ci mu am mbégte ndax bëgg na mbooleem képp koo xam ni taali daayira la wala soppeem nekk ci Sénégal gii rek bëgg nañu àndandoo ak ñu nekk bitim réew bëgg nañu àndandoo ci liggéey bi kon nañ xam ne bu ci kenn di def jëf dara bu ci kenn def woo jëf dara ndax sëñ bi moo namm ñun ñëpp ñu àndandoo ko te lépp ñuy jural mooy ay xéewal ak yi nga leen kon yàlla ñu ko yàlla defal ci barke di leen siyaara gannaaw ba nga xamante ne sant nañu sunu borom subhaanahu wa taala julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallama tey ñaan Cheikh Mountakha Mbacke mu ci Basiiru Mbacke mii di borom Touba sunu borom guddal fanam te wéral cëram kër gi yàgg si gannaawam ànd na tey moom liggéey bi yàlla na ko yàlla def bi yaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaye mbooloo mi ku ne xam na ne bu nu ko waxee bu nu ko waxee nu ngi sant Cheikh Mourtala bu nu ko waxee bu nu ko waxul suñu bët suñu yaram léppay sant sëñ Moustapha yàlla suñu borom na yàggal ko fi wér ay cër yéeneem ak pas-pasam ak bëgg-bëggam mooy nu àndante nu bokk booloo doon benn ndax suñu mag bi xam ne na ne nit day ànd ak i bokkam ànd ak i mbokkam ndax mbokk ñett la sa mbokk mi nga bokkal dara sa mbokkum kërël be ak sa mbokkum dëkk ki nga bokkal dara

nu àndante te lii gëm naa ne mun na weesu fii si kaw jàppante bi gën a nekk ànd bi ni ko sëriñ bi bëggee gën a nekk ñu gën a jokkale liggéey bi te jëme ko ci ndax ñu central bi ndax ci maire bi muy ndax bi si kaw ku ne xam na ne am nañ bureau ba nga ne sëñ moo la ko jiite waaye dinaa ko dox li di soññaat tey santat soxna yu tedd yi ndax ñii day fépp foo xam ne fii jóge nañu fa noog ñoom noo ko ànd soxna yi ñoo ngi leen di sant bu baax na xam ne seen jëf ji neenul sëriñ bi teg na ci bët um bu ko benn yoon xam na seenu taxawaay xam na seen pas-pas xam na seen yente mbooloo bi ku ne xam na ne foofa na ni romb na ni fopp waaye dafa tollo jamono bu bi bi de loolu yëpp naan li de ni war a demee ba ñëpp jot ci li ci war a ba ñëpp teew ndax bés bii tey kullu ku yaakaar Cheikh Moussa laa tey yéene nañ buñ fi dajawaat mbooloo mel ne mépp daje si fii loolu santante di ko ñaanante te di leen ñaaxal bu baax a baax a baax bi ak wóoluwante bi ak nañu jàppante waat bu baax a baax a baax loolu bëgg-bëgg sëriñ bi la yàgg nañu see soññ sëriñ bi yàlla yàlla bugal fanaan ni mu àndee ñun moo ñu àndanteeg moom te loolu la àndanteeg ñun ak di ñu soññ ci taalibe ak njub la àndeeg ñun nit ku a ngi nii nit ku am ngor ku sell ku bu baax ku xam boppam ku xam fi muy teg tànkam nañ xam suñu bopp xam fi ñuy teg suñu tànk ñun fuñ dugg fu dul kër sëñ Mourtala dugg nañ suñu war dugg bañ war a dugg suñu xalaat na jëm suñu Mourtala na doon suñu sox doon suñu yéene doon suñu bëgg-bëgg doon suñu gën ak tamit bii nañ jóg ñun ñëpp takku te doon benn tey siyaarante tey gisante tey ràññante te liggéey mi ñu ko jooyee la jëmee si sëriñ bi te xam ne bu ñu ko defee dinañ am lu koy suñu lu ëpp fuuf nañeen taxawaat bu baax te takkuwaat bu baax na pasos yi fatale kuwaat bu baax a baax a baax a baax bokk taalibe yi nañ leen jàppante waat waxukaay yi ngeen jokkalante ku ne xam na ne raw na fi nekk dinaa si gis ay jokkalante na gën a taxaw na a sal a jot ba ñëpp jot ci bëgg yi ba organiser leen ba seen daayira ñoon mën a taxaw ba bu boobee déggee bi gën a rafet day gën a taxaw nañ leen fasaat suñu liggéey bu baax a baax a baax a baax taxawaat bu baax a baax a baax te xam ne lu ñu def lu ñu ànd ak sëriñ Mourtada liggéeyal liggéeyal ko defu lu ñu wax dañuy góorgóorluwaat bu baax a baax a baax yéen ñi ñëpp kenn ku ne ci moom lan ne ci xolam te bëgg mooy sëriñ Mourtada loolu mooy li leer kenn ku ne ci ñun bëgg koo kenn nañ ko jëmmal jëmmal bi mooy ñun ñëpp ñu maase ci ànd ci benn takku fi la ñu say ni ko moom ni ko bëggee bu ko defee ñu bëgg ñu maa ko sëriñ bi noo ngi jégalu tey tuub tey ñaan sa fan gudd yàlla mu la daan toog yàlla na nga egg niw yoon li nga bëgg yàlla na nga ko am ndax boo ko amee nu am ko yow rek la nu am mbàkke may mu sàkka ñee te may nu gàncax gi daa te solu gërëm te mu tanaa ba koo soob gërëm xanaa ajaa kii ci xaru bi te mooy tawa ci jaara góor a jigéen ci benn baat ndax yàlla bi naan amiina wala xarnu bee quoi ndax mu àndal lu la neex la bu leen nit xalaat sëñ Saliou Mbacké dara bu leen nit ku leen Saalix Mbakke ñu ngi koy ziare bu baax ci biir ziar bi ñu amal di ko nuyu tey ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mu yàggal ko fi lool may ko ak wér eggaleel ko yéenéew ci waaye dina mu teddoo Seex Saalix eggaleel ko yéenéew ci lislaam ak maamam bi teg ja Seexul Xadim kaddu yi kaddu yi gàtt rek lay waaye kaddu yoo xam ne ak cant la ak soññaat sunu bopp cant gi dañ koy jëmale ci sunu borom subhanahu wa taala mi nu sàkk ci coobareem di nga xam ne moo nu fàggul Serigne Saliou mi nga xam ne jëmm jii toog ab joxañam la Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu amul kenn koo xam ne tàq nga ci moom te tànnul la boppam Serigne Saliou nag moom ñaarug Serigne Touba bu nangu la doomi Serigne Touba la waaye nag ñaarug Serigne Touba bu nangu la ndax Seexul Xadim radiyallahu taala anhu bi mu jotee ndigal ci sas yoonu murit ndigal li ko sunu borom njëkk jox mooy tërbiyaa jaam yi tàggale leen ak seen aada ak seen bëgg-bëgg defar seen ruu mën a leen ak seen borom rabbi ashaabika bil himmati bi dars loola am na ay ko sunu borom tege liggéey nga xam ne mënut a ànd ak dara dara dara dara te mooy yoonu géej gi ñaanoon sunu borom ne ko nag ma may koo xam ne liggéey bii nga waxantoon muy tërbiya dana wax dana wax dëgg ñaan googu yàlla ko nangoo ci jënd sëriñ Sadio ni yàlla xam ngeen ne kenn du ci nekk dina wet ku ne man nga see bàyyi sa bopp sa benn jëmm ji toog ci ñi fi sëriñ Sadio bàyyi boppam la. yàgg naa wax ci seen kanam ne bu ñu doon wër ci yoonu murit ñi nga xam ne Serigne Touba diw seen waajur ci ñi gën a néewi at lay bokk waaye ku ko gën a diis ab yéen amu ci bi suñu borom nag am na nu muy junj moom. la mu moom mooy la Serigne Saliou yéene woon Serigne Touba tàmbali ko bu yóbbu ko xam ne loolu tey mu samp jëwriñam joo xam ne fa ko bëgg yóbbu dara fa yóbbu. jëmm ji di Cheikh Mourtada ci tànn Serigne Touba boobu la ko boolewul boppam ci Serigne Saliou Serigne Saliou la neex mu tànn ko def ko muy Mouhamadou Mourtada Serigne Saliou tànn ko rek ngir tànn daf koy loo kon na ngeen dalal seen xel bu baax a baax a baax Serigne Saliou bi ñu daal wax ne lu na la rëy ndox del bay sew seen jataay bii da ngeen dem ba dootu xel kenn ci àdduna nañ koy ñaanal mu yàgg fekk wér te ku ko xam da nga xam ne fii mu teg tànkam pàcc bu jëfu Sëñ Tuubaa dëgg ngi nii ak pàcc bu jëf ngi nii ku yàlla yitteel la kuy sonnal yàlla la ku mbindee fi ñor la ku bëgg a eggaleel waajuram ay liggéeyam ngi nii te ku ko xool te xam nit da nga xam ne tegoon na lu gis ci jamono ji ku xam sëñ Saliou miin ko xam ay definam da nga xam ne la xalwa in saabaha al awlaad walidahum nit bu nuroo na gor dëgg nit ñi ak cër dëgg lañ sëñ Tuubaa defal ci jamono ji moom day benn bëgg-bëgg rek am ànd da ngay xam ne ku toog nit ñi ne jox naa sama bopp ak naka laa fekk mooy gën fii mooy gën bëgg nit nga rek nga leen bëggal te nga ne loolu du bàyyi wala ay bëgg di ngeen ko gis fu nekk di ngeen ko dégg fu nekk ndax jot dafa nekk nag sëriñ Saliou mooy waajuram jot bul topp mukk sa bakkan bul toppale kenn bakkan ñii yàlla yëpp day tax a bon amul góor bi kon nag da ngeen ne liggéey bii ngeen indi soxna te ngeen daal di defal Serigne Sall Serigne Sall ne ku ma saan indi liggéey day wax ne gis nañ ko ñi ngi koy seetloo Serigne Touba bi tax ngeen indi ko. Serigne Touba moom nag ñun bu ñuy xool bagage yii bëti saa yi rek lañ Sëriñ Tuubaa nag moom xam ne biir xam ne bii dafa koy rek baax lii loolu sax mu ci dugal bagaas na ko ñu ko teg ci loxo ndax du ko def Sëriñ Tuubaa noonu ko jëf ji mu nangu mooy jëf joo joxul sëriñ te demul lool jox sëriñ mu yóbbu ko sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa nangu na ko kon moom bi mu ne da jënd ngay jëy fayu jënd la jàkkaarloo doyoon na sëriñ sëriñ Sall da daan wax ne addiye boo ko joxee kan ko jox fam ko def sa xol doon jóg ko moom bu ko jëlee yóbbu ko ci ñay liggéeyal yàlla moom sëriñ bi toog na yéene seen xol sax yàlla te ñooñu nag da ngeen xam yóbbu leen dara ni mu toll dañoo bàyyi yàlla dañoo bàyyi adduna wàcc seen waajur di ut yàlla sëriñ bi xaaral kenn dégluwul kenn waaye lii lan mooy tax mu mën leen yóbbu yéen da ngeen jël mooy seen ñàkk yi nga xam ne moom ngeen koy defal ci liggéey bi ànd na ma ak aw nit man ñëw ci sëriñ Saliou jox ko ak liggéey di ko di sant mbooloo moomu ci seen i jëf sëriñ bi nga ma nañu sant yàlla ndax barab boobu day ku fa def sa jëf am na cër boo fa am boo xam ne lañ ko jëf doomu la ko def mooy lépp kon nag ngeen xam ne seen jëf yi ay luwal la ngeen gën si góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax te xam kii leen Serigne Touba booleel yéesu de yéesu kenn bu Serigne Touba yi sant di séddale ci yoon wi ku mu séddale si am amuñu ko mos a laas xelal naa def kii ab cër la ab cër la. suñu Saliou yëpp sëñ Tuubaa ci moom la ko yàlla dafa la ko la wax. Cheikh Mamadou Moussa bi coobare sëñ Saliou la coobareem la moom la neex mu boole ko ci boppam bàyyee ko lii mu ko bàyyee te xam ne bu baax barke li ko bàyyee xam na ko ku xam ne li ñu toog ci jàmm yàlla ak yéen maa da nga xam ne dëgg dëgg sëriñ Saliou ngi toog yàlla fi yàgg bu baax a baax a baax te la suwaayet bu baax a baax a baax a baax jàmbaar ku toog ci da xam fi nga àndal jim ko nuru nuru di ko roy di ko topp te xam ne du teg ya tànk mukk ci yoon bi kon nag mu ngi tam nañ def suñu tànk ci ginnaam rek te ne yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ci kanamu sëriñ Saliou la ñuy def mu dox ci loola nga topp ci yoonam ànd sa loola loola nga gis ñu nekk su fekkee nekkee léegi kon wax ni nga wax ni moom day soxul lenn lu sëriñ Saliou Sall sëriñ Saliou ñun ñi kenn ku ne xam nga ni sëriñ Saliou Sall xam na ko ñu di jëkk jaay tam loolu dong la ñu waxuñu leneen kon guddal wax duñ ko jàpp ndax moom day du jëm yoo xam ne dañ dañ koy waxati di ko waxati di ko di ko waxati suñ ko doon wax ba ba doon mën noppi nag bu ñu doon wax rek ak ci moom dañoo war a noppi nag ndax nag loo loo gën bëgg a xam waaw moom gën a miin dafa am lu lu lu mag ñu waxoon nii Cheikh Ibrahima Mbacké ba mu gënee àddina suñu baax wax ni dama am moom. maanaam li li li sànq baax na dañ koy wax rek ba waxoon maa ngi sëñ sëñ Tuubaa dafa waxoon Cheikh Abdoulaye moom am naa yaakaar ci moom yaakaar ci moom moo ko tax ba ba jamono jii ku baax fii dama ay seere ci nit ku baax ku téye sëriñ Saliou ku sëriñ Saliou yar ku mag ci yoonu sëriñ Saliou ma ànd ak seere muy sëriñ Diouf mii xamal ma ni ma sëriñ Saliou wax ni ko nan ko ñaanal ndax naa yaakaar ci moom. sëriñ mooy sama seere jox ko kon loola lool lool doy naa ngeen doy naa ngeen te man day bu ma sax réew moom waaye moom mii dafa am tànn sëriñ saa yu wax te maa ngi leen yem ci loola wax ku ma ne tànn lu mu jaay sëriñ saa doo wala muy wut sëriñ Tuubaa la wax ci làmmiñam su màggal Tuubaa ma jug di jug wut ay bagaas yu jëm ci daral bu bees bee mu tëj daay doxoon mu mu am jafe-jafe mu néew mu taaj ni ko damaa bëgg ñu ngi def mu dara nga wala mun ma mu ay ay tiit man ko lu tax mu ne ma ko xanaa ci sëriñ Tuubaa waxuma ko danaa def ci sëriñ mu jiilaate loola ma ne teel ñu jiilaate ñu ci sëriñ Tuubaa damaa ak taxawalaa mu Moussa defoon sëñ moom mii de moom mbirum sëñ Moussa rek doon moo ko ñor sëñ ñu ne sëñ Moussa ni ko Moussa ba màgg mu ko da nga xam ne loolu fekk naa ko ci góor bi. kon lu ñu jot ci àdduna ba am te gërëmu sëñ Taaliw wax na càkkoon te ñun lii ñu jot kon am nañu gërëmu sëñ Taaliw ndax loola nga doon ak lii benn la rek xamu gën a taxal ko kon nag seere ñu am nañu gërëmu sëñ Taaliw jëkk yi te loolu rek ñu wax xel tuuti ma ngi gan ñoom ñu dem suñu jàng ba ma suñu jàng waxee loolu laa laa xam boo jàngoon ba léegi doon xel loolu daal am jàng bu rek yoon bi jàng mënoon wax ak yeneen yoon bi jëm waaye man gënul suñu jàng comme jëm laa ñu naan duñu ko waaw kon taal bi ñoo ngi leen si jaajëf ñëpp suñu xol teg na buy jéeti te itam day day day yokk rek bu jàng ñëw mu jàng parce que Serigne Touba am na yaakaar bu daal doon ginnaaw jàng ko waaw nan ko ñaanal rek yàgg xam ne moom laa wax yàgg na fi mooy suñu kañ. li Serigne Saliou waa Diouf dara li ngeen bu ko waxee mu ñaan leen ma yàgg fi nag waaw. voilà nañ ko wéy di ko ñaanal mu yàgg suñu yàgg lu bëgg lépp dana dana saafara. waaw parce que ñoo ngi lay ñaan yàlla si yàgg. Serigne Serigne Moussa parce que yàlla lañ si yàgg. yàlla na ko yàgg yàlla na yàgg si ginnaaw yàlla na yàgg si Serigne Touba di ko yàlla na yàgg si ginnaaw. Sëriñ Saliou Baay Sëriñ Saliou maanaam lu am moo xam ne moo yële jàpp bisam borom mooy ab bis mu dul xëy ci fan yi mu fu yow koo la ngeen mu ñëw jëkk yàlla xam na woon demam ngeeg demam ngeen demam ko ku mel ne déw seen bam la tey ñii laa dañu doon ñàkk ko innal munaasiqiina wal kaazibina bii jàpp ni soo la daw ñoom seen képp ñu ne nga faj aajoom njaboot nga ca wax ba saa di teelul suñu Seydou liggéey si gannaaw Cheikh Mouhamadou Mbacke nii moom suñu ci mën a wax lan nga euh, lu mos ak lu nekk dañ koy def jamono ju nekk dañ koy def dañuy liggéey liggéey yu bare bare bare ñu jëm ci sëriñ koy tolloo yiisaa noo nga xelkom tool yi dèjà noo fa bu ñu koy def dañuy ñu dajale dajale ay xéewal indi ya ca xelkom day liggéey seen saam ndax xelkom liggéey seen saam bu nga xam ne nag tarbiya tarqiya moo doon liggéey liggéey boobee da Cheikh Mamadou Mourtada moom suñu seen doomu rakk doon ca moom loolu yi la jubale di ñu ci jëy jëmale bam nu ko tegtalee it xarañteefu gone yi fi nekk ak seen i xalaat ñuy nose di réunion di nas di nocci ba seet palang bopp buñ ko jëlee danañ gën a mun a liggéey sëriñ bi ca xel ko loolu moo war a daje te ñaan nañ yàlla it mu gën a yokk ndax léegi si xalaataat am nañ comité scientifique ndax ay cadre lañ yoo xam ne ñu si xalaat bu baax a baax am nañ ay cadre de concertation yoo ñu koy daje di seet nu ñuy def ba jot mbégg sëriñ bi si liggéey xel lii mooy daje tey jii moo waral siyaare bi ak naman ko suñu sëriñ nga xam ne ñun bëgguñu ko dul moom kon boo gisee tey ni ñu mel nga xam ne ñoom ñëpp seen xol sooy faw si moo di ñaan loolu na mu yàgg fi diwé moom macha allah tey di gërëm it euh, waa Sen TV ah, waa waa Bichri yaa ngi doon joxe léegi ay ay conseil ci ndaw ñi ñi nga xamante ñoom ñoo topp suñu est-ce que mën nga ñëwaat ci conseil waaw conseil li ma si jublu mooy rek ñu tënk jublu jublu ko ñun ñëpp ñu jublu ko te bañ a soxla leneen lu dul jàpp suñu njàmbur def suñu fulla ak suñu fayda ak suñu pëstéef ci liggéey ak jaamu yàlla ndax loolu rek lañu ñu oom suñu ci leneen nu bëggoon na sa xale yi loolu mancé sax loolu ndax jamono jii dafa yëngu yëngoo fu ne baxe fu ne yëngoo nu ne nu bañ nag kenn ci ñun ñi ànd ak moom di tàbbi ci mbooloo mu mel noonu yàlla nañu suñu musal liñ bëgg mooy sax si moom ndax moom jaamu yàlla liggéey jàpp njàmbur moo waraloon sax may seere sànq doxinam woow mu doxe ci taalibeem bi fi bàyyee ko ci àdduna juróom-ñaar wëri woon ko ñëpp dem fa muy woykat boobu wala musicien bi nekkoon ci sunu Habib Faye keroog ba mu faatoo yàlla dafa dogal Habib taalibu sëñ Saliou mu bawoo fa bise bi mu nekkee mu mujjee gis sëñ Saliou mu ñëw si Serigne Mourtala yeesal njëbbal si biir tawatam gi sax woo na fi ñaari yoon sëñ bi jokkoo ak moom ci ay ñaan keroog ba mu génne waxanteeg Serigne bi la mu waxanteeg moom ba ñu def tentamment taxawal ko sa principal président de la république ànd ak gàngooram politicien yëpp ñëw fa waaye sëñ bi moom yàlla dogal na jotaay booba demu fa ko gàntal ndax moom xam na ne demam foofu ñooñu euh, dara taxu leen a jóg lu de euh, mbiri addina mu daal di toog fa mu war a toog bañ àggalee seen festivité yi ñu def baa àggal jël néew bi nag yóbbu ko sa jàkka ja mu xam ne moom foofu way barabam te lu yóbbu sa jàkka ja daal di ko ñaanal yàlla mu jéggal ko te tàbbal ko àjjana yàlla defal ko loolu mu wëlbati ko dem sa kër soxna jaalante ko waa kër ga soññaat leen si suñu borom dellu si Tuubaa moom si lii la nekk new ci ñu bëggoon na ko ne yëpp maase rek ne ci loolu te xam ne lu dul jàng jubal liggéey am ko séen ku fasoo doon benn te xalaat bu jëmale liggéey si ca kanam loolu jërëjëf waaleykum salaam